asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yow Mouhamadul Makki président Macky Sall gàttandu lay gàttandu ak mbégte mu rëy rëy. maag sama bokk yu baax yii jiite mbooloo mi. bokk yu baax yii jiite mbooloo mi. ñu nga xam ne ñoo bokk liggéey bi bokk sëriñ bi.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 bëggoon a leeral rek. am na lu ma bëggoon a leeral rek muy sama diggante ak président di ko seeral sama bokk yu baax yi muy mbokki taalib yi ak mboolem mbokki taalib yi moom président.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 di ma teral it ngir sëriñ Touba. di ma teral it ngir sëriñ nekk nañ ci loolu ab diir. nekk nañ ci loolu ab diir. dogalu sunu borom bi door a agsi fii fii mu agsi. dogalu sunu borom bi door a agsi fii mu agsi. yaakaar joojee ak doyloo googee. yaakaar joojee ak doyloo googee. mu daal di ci dolli ko lool. mu mu dolli ko lool def ci itam jëpp ci sama diggante ak moom. loolu nag. loolu nag. toogaay bii nga xam ni la yàlla dogal ci ci ci ci pàgguteefu sëriñ bi. toogaay bii nga xam ne moom la yàlla dogal ci pàgguteefu sëriñ bi. tax nag dajante gi nga xam ne nag noonu mu noonu mu àndi ak man. ba dogal bii agsi. do ànd gi mu àndoon ak man ba dogal bii agsi ñu dajlante. dajante gi dolli ko ci. dajante gi dolli ko ci. yaakaaram gën a rëy lool. yaakaaram gën a rëy lool. ak doyloom gën gën a sori lool. ak doyloom gën a sori lool. loolu nag tax bi ma seetee sama bopp. loolu nag tax bi ma seetee sama bopp. loolu dafa daal di diis ci man. loolu day daal diis ci man. naa ne. te foog naa ne. dafa woon naa ne. doo doyadi doomu aadama du ma jàpp. dafa woon naa ne doyadi doomu aadama du jàpp.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 sëriñ bi rek laa teew. sëriñ bi ko sama bopp dénk ko mbirum mag. mu ne loolu. defe naa ci li weesu. dégg na ko ci man ay yoon. ba ci yoon bi mu ba ci yoon mujjee fii. di ubbi si campagne bi. bi ñu duggee ci néeg bi la ma ko jëkk wax mu ne ko yow dama la ameel bor te man aw ma lu ma la fayee. te aw ma lu ma la moom la lay fayee. kon noonu la demee. kon noonu la demee. ñaan sax. ñaan sax. musuma ko cee xalaat. musuma ndax sama ñaan ñaanu bopp sax doyu ma ci. ndax yitteel bu ma yitteel. moo tax ma defee ko noonu. ñaanu na.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 muy def ak a dindi ci bàkkeeb sëriñ bi mu def jàmm ci réew maa ngi ñaan suñu boroom muy def dindi ci barkeeb sëriñ bi mu may waa réew mi jàmm loolu mooy samay ñaan sant nag rek. nee di sant nag rek nag. kaddu yooyu rek. kaddu yooyu rek. laa bëggoon a jiital. ubbil ko Cheikh Mouhamadul Bachir. am na loo xam yitte ju rëy ju am na nag yitte ju rëy ju mu ñu gën a warmaal Serigne ci dëkkam bii. yitte ji mooy bëgg rek ñu gën a warmaal Serigne Touba ci dëkkam bii. Serigne ngi fi. warmaal ko ñu ko. dëkk baa ngi fi. dëkk boo xam ne. muy dëkk boo xam ne. bu xamee dara lu mu bëgg ci àdduna. bu ñu xamee lu mu bëgg dara ci àdduna. kanaa kon dëkkam bii képp lay doon. te fàggu na fi lépp. te fàggu na fi lépp. li mu fi def. li mu fi def. maanaam am na fi coo bu doon sonn. bu doon sonn. am na fi coono yu rëy. am na fi coono yu rëy.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 am worma. dëkk bi am worma. wormaal ki fi nekk wormaal ki fi nekk. wormaal dëkk bi. ci lépp lu ko ci lépp lu ko fi neexul. loolu loolu loo ñuy dimbalee. loolu lañ ci mën ca ñàkk. kon kon noonu la. kon noonu la demee. Ah, ah, yitte ji fi fekk nag. yitte fekk dafa fekkoon.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 ginnaaw Cheikh Bass dama ko doon bëgg a yónni mu ñëw ci yow. gannaaw Cheikh Bass dama ko doon mu ci yow. tawfeex ji am ci nga fa ñëwal sa bopp. ji sa bopp. bu ñëw di ma santale. ñëw di ma bu ma ko waxee ñëw di ma santale. kon Cheikh Bass kaddu gaangoo.